question yu ngeen ñuy yónnee ak hashtag bi di euh, QG 2019 euh, euh, réaction yi moom Mamadou Ndiaye ñu dem ci léegi nii. oui réaction yu bëri na bëri na bëri na Pape Cheikh moo tax tey tey damay gën ak yow fii ci chiffre déjà bu ñu xoolee suñu live bi ci Facebook am nañ 18 913 yoo xam ne personnes touchées 4 152 interactions plus de 100 partages. bari na li wane ni euh, internautes yi ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi solo bi ñu jox wala importance bi ñu jox tey émission bi di quartier général surtout. docteur jar na ko di Ahmed Khalifa Niass. na ko am na nag ci vidéo yi benn bi nga xamante ni choisir nañ ko ci mu nekk question yi nga xamante ni euh, dégtal nañ ko kii di Ahmed Khalifa Niass ñu dem ci vidéo bi te ñëwaat. ayca asalaamaaleykum waa QG waaw man Ahmed Khalifa Niass laa bëggoon poser ñaari question rek waaw parce que loo ko bëgg a laaj lu yàlla wax ci toroxal nit ak xaawi sutura nit waaw moom ak li mu jàng yëpp di jàngalaate bon man dama gis ni def na ko nit daal waaw maanaam soxna soo su nekk Kaolack mu ne soxna si da ko mariage benn mu ne soxna si da ko da ko moom ba pare da ko gaafal non seulement demandé na ko en mariage accordé ko ba pare dem gaafal ko. naan seen i ñaari yoon di moom mooy nekk ñetteel bi donc yow publiquement nga toog ci télévision xaawi suturaam toroxal ko te loo xam ni yéen ñaar rek ko seexoon yéen ñaar rek ko wax pour man waroo woon toog ci télévision bi di wax loolu daal kooku moom erreur bu rëy rëy rëy rëy la waa soo sama sagoon nag nga delluwaat jéggalu ko baalu ko ax te nga wax ni lan la yàlla wax ci toroxal nit ak xaawi sutura nit. asalaamaaleykum. loo koy loo koy tontu li ma koy tontu moom xamul ne kooku. man maa ko yóbbu màkk ak borom këram bu mu njëkk a séen. dégg nga man tooxaluma kenn dama ne sama néegu yaay nañ ko jox doomam mu di fa jàng alxuraan moom ñu jox ko fu ko neex fekk ma am xabaar yoo xam ne ñàkk bëgg a génn bi ndax yónni naa ko ne ñàkk bëgg a génn bi xëy na am na. ñu ñu fa suul ak yooyu yaakaar ne bu ñëwee nañ ko sulli te lu yàgg-yàgg nañ ko sulli de ndax service d'hygiène ñëw nañu fa relever nañu gis nañu ay mbir daal waaye loolu du waxu fii man du ma nit ku mat nit rek laa lépp luy dal nit mën na maa dal je pas un super homme je suis qu'un homme mortel waaye moom na seet ndax bu amoon néegu yaayam soxnaay rakkam boo xam ne amu fa doom te am na feneen fu mu dem ndax dana ko wax mu ab bu ko waxee na ko na abal na ko abal néegu yaayam ndax loolu toroxal ko la walla déet waaw kon nag ce qui est important mhm. mooy foofu titre foncier la benn tur rek moo ca ne sama tur moo ca ne mhm. kon nag na abal borom titre foncier bi palaasam ñàkkul fu mu dem. voilà waaw. je pense que réponse bi leer na. waaw voilà beneen question moom Mamadou Ndiaye. question muy beneen vidéo bi nga xamante ni beneen téléspectateur aussi moo ko posé mën nañ ko déglu te ñëwaat. waaw salaamaaleykum ñu ngi lay groupe Futurs Médias maa ngi leen di ziar bu wér maa ngi nuyu Ahmed Khalifa Niass sama sëriñ man benn question laa koy laaj quoi lan moo tax maanaam moom euh, moom nee na multimilliardaire la

xam nga c'est moom gisul investissement bi que investissement amul. Mm-hmm. lu dëgg. Mm-hmm. man investi naa Sénégal investi naa en Afrique je suis même investisseur en Arabie Saoudite. Mm-hmm. maa ngi sama carte d'investisseur. Guinée gii boo demee Conakry. Mm. Sheraton ba fa ne maa ko tabax maa ko moom titre foncier baa ngi fi. Sénégal bëri na bëri na. maa comme exemple par exemple. non pas forcément xam nga lu ñu gis ak lu ñu gisul mi ngi fi. xam nga am nga am nga am naa ay société yow boo amee société bi société yi dañuy am euh, ñu ne ah, def lu ñu war a def et tout nekk euh, en règle ak lépp. Mhm. xëy na nag du lu ne la ñuy wax euh, mën ngaa romb foo xam ne maa ko moom te ne maa ko mhm. mën nga romb sax usine foog ne keneen a ko ma fekk. maa ko moom nit mën naa wàcc wàcc batu ceeb di jaay. Mm, te xëy na man sax aw du ma ci jot benn saako ceeb mais xëy na man maa moom bato ba mais loolu est-ce que nekk nañu fi pour saam ko déedéet. li ma wax daal mooy ñaar yi danaa ko wax mooy am na ay valeur yoo xam ne buñ koy unité de compte bi milliard la ñaareel ba yorul benn doomu aadama bor ci kaw suuf du banque du société tey bu ma dee woon kenn du réclamer juróomi dërëm voilà donc question bi réponse bi defe naa leer na ñu demaat ci beneen internaute beneen internaute bi dañuy ñëw ci Twitter hashtag euh, QGTFM ki sab ak aikido moom lu mu expliqué li mu laajte euh, ki nga xamante ne mooy invité bi di Ahmed Khalifa Niass mooy nan la mën a nan lañ mën a wóorandoo Makka bu fekkee heure yi bokkul dafa joxe sax exemple 19h bu jotee fële ca Vancouver fanaan ca Canada Dakar 2h jot fii Melbourne fële ca Australie beneen heure jot fa nan lañ mën a wóorandoo Makka. waaye xam na loolu vraiment nit koo xam ne da bëgg a jaaxal sa bopp maanaam yow miiruwoo sax waaye da ngay wëndeelu mbaay mbaay di wëndeelu ba faf miir daanu <laughs> mënuma ca dara waaye sëriñ bi ñun mënuñoo dañoo war a am différence ñetti waxtu ma dox suñu diggante màkk dañoo war a am différence ñaari at waaye ñun euh, am nañ ci foo xam ne tey soriwul Vancouver muy euh, île Hawaï Hawaï boobu suñu diggante ak ñoom euh, jege na fukki waxtu ak ñaar waaw kon ñooñu ñaata waxtu lañu wa ñaata jour lañu war a toog door a war a war a ndoog màkk kon màkk war naa toog 10 jours xanaa war 10 jours ñu door a yegg yom ci war a woor tey que di jël koor di ko nattalee ci ñaari heure ñaata heure lañu rawantee loolu ñàkk xam lan la li may wax loolu yomb la jullit warta juyoo ak màkkata tey ko jullit nag buy liggéey pour séparé ak Makka ci lu am importance su weer wi feeñ na. mais ñu dañu wax ne Paris weer wi feeñ na ñu woor te Paris ñaari heure rek la ñu rawee. Euh, Paris maanaam New York googu dañuy war a ndoog Makka te Makka rawaleen euh, xaw ma ay ay huit heures de temps ak lu ko ëpp ko ëpp. buñ ko nattee foofu loolu waxi ko amul xam-xam la su fekk xam nga vingt quatre heures moo am su fekkee ne décalage horaire bi ci la ñuy basé. kon dafay am 24 ramadan bu ñuy nekkee le premier ñu nekk koy le 24. <laughs> bu dee loolu la bëgg na ko def. bon d' accord donc defe naa lépp leer na merci euh, Mamadou Ndiaye ñu gërëm tamit euh, internautes yëpp euh, continuer ak yéen ah, ci quartier général bu tey bi fàttaliwaat leen ni ñu ngi leen di xaar.